unité et du rassemblement dafa nekk parti boo xam ne dafa am ñetti lu koy mandargaal muy devise muy justice développement ak solidarité euh, ci bésu tey bii nag ñu tànn benn pàcc ci euh, devise boobu tax ko jigéen ñi muy solidarité xam nañu ni jigéen bu feebaree société familiale yëpp dafay feebar euh, jàngu xale ya dina sooxe équilibre kër ga du matale tamit te euh, wax dëgg yàlla koom-koom ak lañ fa doon yaakaar yépp dafay taxaw feebar bu tudd cancer muy cancer du col de l'utérus et cancer du sang dafa nekk feebar boo xam ne comme sànq ni muy dawe ci image yi ñuy gis nii feebar boo xam ne dafay làqatu te pour faj ko dafay xaw a diis traitement bi dafa cher bu mu dugg defe naa ne boo moytuwulee li ñu am yëpp dinañ ko euh, mujj dugal ci faj boobu ndax faj bi dafa metti te diis. ci loolu lañu xalaat ne dinañu pré def prévention ndax prévention système de prévention yi ñu tëral fii ci Sénégal dafa xaw sooxe matalewul moo indil tey ji ñu def euh, séance de dépistage bi may ko jigéen ñi gratuitement pour ñu mën a saytu seen bopp. xool li li nekk seen yaram ba mu mat te ku ku ci euh, ñu ngi ñaan yàlla bu fi kenn jóge feebar dal ko mais ku ci am soupçon wala dara jàppale ci rek dinañ la gunge tegte la yóbbu la ci structure de santé yoo xam ne xel la dinañ la mën a saytu te duñ nañ la dalal sa xel tamit mooy suivi psychologique bi toppatoo la ba nga xam ne euh, la tam war war yépp dinañ ko battale ñun kii édition bii nag fas yéene nañ ko tamit jàllale ci Sénégal yëpp te ci yeneen kii yëpp tamit euh, ci yeneen région yi et même au delà du Sénégal fas nañ ko foo yóbbu tamit donc ci loolu mooy bés bi am nañu tamit beneen volet muy don de sang ndax ak nañu accident yi bari na lool deret ji tuuru bari na yal na yàlla musal yal na yàlla sàmm Sénégal yal na yàlla def la mag ya waxoon ne ñu sang réew mi te ki kay sang incha allah pur lay doon ndax lu lu lu tilim wala mu yàqu lu lu lu set muy lu pur moo koy setal incha allah donc ñu yaakaar ne ah, euh, ak euh, accident yu bari accouchement yu difficile da ngay gis léegi même ci réseaux sociaux yi xale yu tuuti di génn àddina ci accouchement donc yooyu yëpp daf ñu préoccupé ñun jigéenu Pur ah. opération chirurgicale yi tamit dafay laaj deret dialyse yi feebaru rein yi bari na mooy feebaru roñoo yi bari na dafay laaj deret tamit loolu moo waral suñu taxawaayu tey bi nii ñuy woo ñëpp nag ne ñu joxe seen deret wax dëgg yàlla ah may woo nag jeunes yeeg jigéen yeeg ñëpp di leen wax ne aji lor bi moo soxla seen deret ngal bu leen ko ne déedéet jox leen koko ba mu ne bëreet nga am yoon am ngërëmal xeet loolu moom dinañ ko di ko toll fu ñu toll di ko yaatal ci xale yi di leen wax di leen conscientiser ci loolu pour ñuy mën a joxe euh, deret muy acte benn acte boo xam ne citoyen bu nekk da ko war a def citoyen bu nekk sa warugar la ñuy ñaan ñëpp daal ñu euh, bàyyi xel ci feebaru cancer te dafa nekk feebar boo xam ne nañ ñëpp xam ne mën nañ ko faj mais fagaru moo gën faj dañ ci teel a bu buñ ko teel a dépister comme nii ñu orienté nit ñi ci structure de santé yi jàppale leen ci defe naa bu bu ñu leen euh, toppee ni mu waree rek def système de prévention yoo xam ne dina matale rek feebar boobu dina fi jóge wala mu wàññeeku fi loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah

ñun nag ñu leen di gërëm di leen sant. Mhm. ci lii ngeen def tey rafet na am na loo xam ne père bi wax na ko fi keroog entre chrétien ak catholique yi ñu doon benn waaw bi ngeen ñaan pour ngeen ñëw def ko fii mu may leen ko ngeen ñëw def ko fii nee na nag mu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ndax lii kontaan na ci trop kontaan na di trop képp ko xam ne ñëw nga fi nag yal na say aajo faju loo bëgg ci sa yaram yal na la ko yàlla may yéen liggéeykat yi jërë ngeen jëf gàcce ngaa la ma ci ndax lii dafa nekk feebar boo xam ne metti na metti boo xam ne kenn mënu ko wax waxatuma la nga di ko def te fayeeku la dërëm yéen yéen jërë ngeen jëf jërë jëf li rafet na torop te na yàlla na fi yàgg bi am bu mu yem tey jërë jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant di turu paroisse saint bi leen dalal ak président Malka Faye jërë jëf et la fête soit belle. Merci. waxee rek xam naa su ci tegu mooy dañuy def euh, kàddu jàllule ci micro bi waaw micro boobu mooy def. xam naa maa ngi jégalu pour l'improvisation on n'est pas très champion dans l'improvisation di jottali kaddu président parti bi xam naa sax ñu ngi doon wax président d'honneur c'est pas un président d'honneur c'est le président du parti <laughs> Serigne Moustapha Sy li nga xam ne moom la ci soxna Ndeye Coumba wax kenn du ci teg kàddu te mooy dafay kilifa goo xam ne yàlla daf ko baaxe ba mu gimmee ba tey lu muy def pour lu dimbali askanam la pour lu xettali askanam la pour lu askanam tax askanam jëm ci kanam ku mel noonu nag lépp lu mu sumb da yëg ci biir ne loolu la ci jiital moo tax ñu yëkkati kàddu te di ko yëkkati ci turu madame si mi nga xam ne nii ak délégation bi mu àndal ñoo ko fi représenté di ko yëkkati ci turu directoire bi nga xam ne nii suñu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye mi ngi ci bokk ak ñi nga xam ne ñoo fi teewal ñoo ñooy ñooy jiite mouvement yi ak commission yi ci parti bi ñëpp teew nañ ak responsable parti bi ñoom ñëpp teew nañ di leen sant bu baax ci journée bi di wax nag ne ñu ngi jiital ci cant gi ñi nga xam ne ñuy autorité paroisse bi kilifa yi nekk ci parwaas bi ndax ñoom dañoo dégg waxu kilifa nga waxoon ne nee na nekk jullit wala lekk yahut wala lekk chrétien nee na ba xër ca ba ëppal ca nee na du loolu leen soxla li ñu soxla mooy ku nekk dund sa diine waaye du tee nag am na koo xam ne daje nañ ko mooy yu ñëpp ci yàlla lañ jógee loolu ñoom comprendre nañ ko te doxal nañ ko ndax am réew li koy tabax mooy ñëpp àndandoo du am waasoo du am xeet du am diine mais ñëpp benn bokk benn objectif muy taxaw pour jëmale réew ma kanam ndax dañuy wax ne moo tax parti pur li nga xam ne nii moom lay doxal li ci ëpp daf ko jël doomu aadama mu jox ko gëdd ndax doomu aadama mooy tabax développement doomu aadama mooy def émergence waaye ban doomu aadama ban nit nit ci wér gu yaram nit bu amul wér xelam wérul yaramam wérul njàngam bënnul nit kooku fu ne dana fa mën a yóbbu réew du teg te bala nga ne naam nekk fa lii tax nga nekk fa mooy wér gu yaram d'abord te ñu gis ne cancer col de l'utérus cancer ak yeneen feebar yi nga xam ne nii mi ngi ci pénc mi solal na jigéen ñi mu ngi faat lu bari ñenn yi muy yàq seen dund koom-koom bi nga xam ne moom lay famille yi dajale ci seen kër lépp ñuy yokki ko joxe ko ngir faj seen ay jigéen seeni sœur seeni soxna seeni rakk seeni mag mu mel ni loolu nag tey jii PUR lii mu def nii du jëfu politique politicienne du jëfu politique politicienne dafa am benn dimension philanthropique sociale et humaniste boo xam ne nii moom lañ jëf tey jii te mouvement des femmes jëf ko woo jigéen ñëpp ñu ñëw dépisté wu ndax Sénégal jigéen ñi dañuy tàmm di Sénégal yëpp sax jigéen ñi góor ñi ku nekk da ngay tàmm sax dem seeti sa yaram ci docteur ndax ragal ñu wax la te ñu wax la nga teel a xam faju moo gën balaa muy weesu kon nag ñu ngi encouragé lii te jàpp naa ne mouvement des lii mu teg tey yii benn jéego la yeneen jéego dana ñëw président mi ngi leen di encouragé di leen ñaanal li nga xam ne nii moom ngeen tàmbali tey yàlla jàppale leen ci ngeen am ci ndam bu mag a mag a mag ñuy sant nag ñi la jàppale ci liggéey bi yëpp soxna Ndey Kumba wax naa ko sànq ci tubaab nee naa moom mi jiite mouvement bi jigéen ju am valeur la jigéen ju xam boppam la jigéen la joo xam ne ni modèle la pour bépp jigéen royukaay la ñi koy jàppale te ki ci jiitu di soxna Mboosi Giro honorable député moom it kazalika yeneen jigéen ñi ànd ak ñoom nga xam ne fan yii yëpp noppaluwuñu bu dégg bëccëg ñuy dang-dangi pour journée bi réussir yàlla suturaal nañu tey jàpp naa ne journée bi réussir na ba pare kon nag yàlla nañ ko muurloo kàddu yi jaxasoo na mais loolu lañ mu doon bëggoon a wax ci turu président di ñaan yàlla rek ñu dugg ci journée bi ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu merci